nag mooy góorlóor ak mbooleem ñuy liggéey ak ñi yor wata ñaan boobu ñu wax ni bisimilah rahmaan ñetti yoon boo ko waxee loolu bu fekkee da ngay nga wax ko ñetti yoon nga julli ci yore ñetti yoon bala ngay dugg ci réunion ñëpp dañuy notu parce que kilifa bu ne am nañu ko kontar waaye fekkee ne da nekk ci sa bureau nga bëgg a jóg réunion nii nga wax bisimilah rahmaan ba mu yoon nga julli noonu daal def nii boo duggee ci mbooloo mi nga dugg dañ lay bëgg dañ lay bëggee comme seen doom bu ndaw loo wax rek dañuy def nii tey service bu ñëpp d'accord yow doo da dangay sonn bu fekkee da ngay dugg si waxta itam bala ngay dugg da ngay julli ñetti yoon wax ñetti yoon faati nga dal def nii nga wax bisimilahi rahmaan ba mu jeex nga wax faati salaatu ala nabi allahumma salli ala ma muhammad ne wa rasul ñetti yoon nga def nii dugg sooto bu dee dangay ngay tukki di wuti dara ci dëkk ak lu mën a doon bu dee mission wala da nga bëgg ñëpp na su dégg ak yow da ko koy wax boo jibee dëkk ba boo demee nii kenn du la weddi bu fekkee da ngay wuti ci sa xarit dara soxla bu dee dangay ngay lebi wala da ngay bëgg pour mu dimbali la boo ko waxee boo koy jox loxo rek day mel ni comme glace lenn la li lu mën yox jox de newu fa waaye bu fa nee foofu mu jox la ko sa noon boo ko waxee sax sa noon du la muy bëgg surtout nag ñu si service nga xam ne da ngay def réunion da ngay def mission di tourné nii boo koy faral def da ngay gis nit ñi bëgg loolu nag dama dama leen ko xamal ni yàlla baal la sa bakkaar fu ñuy màggale yoonal képp ku ci ñam nii yàlla baal la sa bakkaar ndax moo xam ne rek mooy ci yàlla yëpp mooy saay bu darajaat mooy saay bu sultaan mooy saay bu fadalaat mooy saay bu bra mooy aynu nayin mooy seydil haabidin seydil akramina سيد الجنة والنار سيد الأولين سيد كل نفس ما مريد ما جرى ترى ما يجي حمنا كيف كوكو ترى لون أما بن أما بن بن درجة ما مريد لين ولا ترى ما مريد لين ولا يكتي ما مريد لين ولا بق ما مريد لين ولا جاب ما مو يتحنين دم أجنم ويتحنين دم سفارة kon nag moom la yàlla may daraja boobu képp koo xam ne kii yaa ngi ñam ci fépp fu ñu koy màggale xeeram day araam day araam safara